الى خليف جرال دي مورد شام عبد الملتقى ابن شام عبد البشير ولا بايكو توبا نيو تاي غير جمل بس سيرن مباكي فاي ني ديكو نانا يالا سامكو ديفال كو وير في بركه الشيخ الخديم موم مو يكسي نونو اند اك ني مودان اندال سيرن توبا موم الاسلام لا في نيكال سيرن توبا موي الاسلام tool bii nga xam ni mooy toolub lislaam yàlla jël yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu doon jëwriñ ji sëriñ tuuba moo ko doon ci moom moo ko bindi moo ni lil Moustapha nawaytu ma yujaddidu sunnatuhu xarra wa inni ahmadu kon lépp lu mu def jullit yi ñoo tax murit nag ku ci génn sa bopp yaa ci génn waaye muridullaay la ñuy wax ku mu jëm ci yàlla te jàpp naa ni jullit yëpp a namm dem ci yàlla kon lii fi def defuñu ko ngir tariixa defuñu ko ngir groupe defuñu ko ngir kenn lislaam a tax sëñ bi def ko ndaxte sëriñ bi lislaam a ko ñor ndax moom mooy lislaam sëñ Touba mooy lislaam sëñ Touba mooy sunna ndax moo ko doon kon ku fa ñëw ku ne xam nga li nga xam ni mooy mission sëriñ Touba te it bi mu fi nekkee nekk feek maam yi ñi fiy ñëw ñëpp xamoon nañu li ko li ko ñor dëgg mooy ñëpp doon benn na ko yàlla waxee na jullit yi doon benn wastasimu bi abdillahi jamian wala tafarraqu ci la sëriñ Touba xë

loolu la len wax en résumé l'islam nak ci lañu ñu bokk wenn yoon moy am moy l'islam li ci de yon yeneen yi nga xamni yi ay turux lañu yépp dañoo dañoo dañoo ñëw ñëw japp yoon wu mag wi nga xamni wi wenn yoon la moy l'islam kon ñun ñëpp ñoko ko bokk tarixa yeeg turux yeeg ñëppay ñëw gis ngeen xalu général des mourides ci mbax gi mom moy ñëw nonu ndokel ci nga xamante ne que moom mooy mg yalla sam ko yàlla defal ko tawféex yàlla yokk aw fanam yàlla dimbali ko mu àndoon ci ak Mawlana Cheikh Saliou Mbacké sëriñ bay ëppi milliard Cheikh Mountakha yàlla na fu yàgg Cheikh Mountakha baat la boo xam ni ku ko waxul gore ndax sëriñ Touba mooy lislaam sëriñ tubaa jëfi lislaam la waaye sëriñ tubaa cërub lislaam la sëriñ baa ngi noonu xam naa bu wàccee ba ci suuf day wàcc ñaanal mbey Gueye moom mi nga xamni ni mo moo ke Serigne Touba gi nek koloban ngir bu Serigne bi ñëwé man ci dal kay waye ma nga seen Cheikh Omar Serigne Moussa Nawel moom itamit di dom ci Serigne bi ndax mom dom Serigne Moussa Bassirou la ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir mo ngi nonu ñom ñaar ñu ànd wara gatanu khalu xaalu général des Mourides Cheikh Omar mo ngi bés bi kenn do lu ko fàtte ay Cheikh muntaha Mountakha jërëjëf Serigne Touba rek ngay deg xol yëpp sa dama ne réew mi nañu maas woon jërëjëf Serigne Touba xewal am na ko def. xol yi sant mu ngi nonu dënn yi yenguna mu ngi nonu mouride ci kontaan nañu Cheikh muntaha Cheikh muntaha na wer Cheikh muntaha na dundu Cheikh muntaha na fu yag mbacke mouride yi bëgg nañu la mbacke mouride yi gëm nañu la mouride yi yaakaar nañu la. waaye santaat yàlla te xamna mouride nañu and ak dal xamna ki fi ñëw tay mo Serigne Touba. nañu ànd ak dal nañu ànd ak te xam ne ki fi ñëw mooy Serigne Touba mooy Xaadimu Rasul nañu ànd ak dal te yaru te xam ne lii ndam la ñoo ngi santaat yàlla bu baax te santaat Serigne Touba te xam ne Serigne Touba amoon na ndam amaat na ndam tey te am ndam boobu ba abadan lay doon abadan abadan abadan. xol bee sell Cheikh Mountakha ñëw na. saan gis nga Cheikh Omar mu ngi noonu ku jooyul gore woo. موي مسخم بالله امول بروم jërëjëf mbokki mouride yi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ibn Cheikh bashir ñewna ñëw na juk sargal ci mouride yi lu ko tax a sargal l'islam lu ko juk moy tay mooy tey bëggal lislaam bés ba ngi ni amna ko dige bi ak serigne touba ak Cheikh rasoulullah sallallahu alayhi wasallam sallam dige baa ngi ni amna ko Cheikh Mountakha bir Dakar bolo 27 ana ci mouride yi ànd ceeg taalibe yi ànd ceeg jëru mbàkk yu fay tay Cheikhul khalim bëgg na alayhi salaatu wa salaam bëgg na Iblis ah fa mu ne tey yuuxu na Iblis tey fa mu ne am na gàcce Iblis tey fa mu ne ku jooy na ndax jumaa ji Cheikhul Khadim bëggoon am na ko ginnaaw bi mu santee Cheikh Mamadou Moustapha ba ca Touba ak ba ca Njaareem yàlla may ko ci ndam waaye nañu fàttaliku keroog ba muy julli ca Gabon te warale woon jàkkaam jàkki bant noonu ba ñëw sempi bant ya sànni ko rasulullah yi ne ko bégal naa la may ñaari jàkka benn bi ca Touba benn bi ca Njaareem dinaa la fàttali sax ba fépp foo dem yow Bamba muy jàkka tey gis ngeen masaalikoo ngi nii كوبي تلت اي مليار سيري ساليو تامبالي وانكو بروزي بروميير بير شيخ محمد لبن بارا انا تيك لبريزن ابلاي واد تامبالي لغي بي انا تيك اك شيخ سيري مختار وهي تي شيخ منتخا مي اندون اك نيوم شيخ منتخا مي نكول سين جورين شيخ منتخا مي نكول سين لغي كتبا شيخ منتخا مي نكول سين جامبا تي مو توق يو توقع شاول خدم وهي مبكي بني فاتلو رسول الله مو منتخا مبكي بني فاتلو cheikhul xadim mooy muntaxa kon moom mii toog tey muntaxa moy xaadimu rasul tay mo ngi nonu ñëw masalikul jinan di bésam bu ñeuk bëgg dugg ci bir jumaa ji gëna gëna ko ginnaaw bi mu jaaree ci mbey Gueye amc ziar ko tatagal ko ñaanal ko ci liggéey bu rëy bi mu liggéey keur Serigne Touba gi ngir ñu gëralee ko serigne bi ànd ak jëru Mbàkke yi fay ànd ak njabootu Cheikhul Khadim jëp fas yéene ñëw Masalik dugg ci bir jumaa ji xol liggéey bi nañu ko tambalé xol liggéey bi nañu ko jëfé خل لجي بي نمو يجي خل لجي بي نمو تارو كون إذا ذكر ذلك المبيت وسالك اللمين والصبوت والله موم شيخ الخديم موي جول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا نكو تي جمم وانا نكو تي جفم وانا نكو تي نبوتم نكو تي مندم نكو تي تاي سيكل انانغم ابري اي جفم دي وير اك تيوفلام دي وير مو ديكو جوخ كون موكي ني اند كون اند اك شيخ منتخب ànd ak yéen ànd ak jëwriñ Mbàkke yu fay ànd ak yéen ànd ak njabootu Cheikhul Khadim gi dugg ci biir Masalik ànd ak sëñ bi mu visité nag biir jumaa ji mu ngi noonu taxaw ànd ak sëñ Moussa Lakram waaye ànd ak njabootu Cheikhul Khadim gi ñu fas yéene teeru ki nga xamante ne que mooy Cheikh Mountakha la mu santaane woon digle ko def na ko waaye li ci Cheikhul Khadim it digle woon muy ak pay danañu ko am waaye di borom mbékk moom itam di borom mbaax yàlla may ko fasaa macha allah fu waxee ñu gën a naw yoonu murit waaye fu mu jëlee défense yoon wi. taaliba yëpp kontaan mu ngi noonu di waxtaan ak suñu Sall Karam moom tamit bokk ci ñi nga xam ni daanaka sëriñ bi dina ko yónni ci ay yónni yu bari mu di ko représenté lu bari ci ay dëkk di ko inauguré ji ay juma waaye di ko tuddali aussi ay doom dama wax ni Cheikh Bass ñëw na xalifa bi mooy ñëw noonu ànd ak ñi mu àndal bàyyi ko Touba fas yéene ñëw tey. xool ci dig bi nga xam ne Rasulullah digoon na ko maam ni Cheikhul Khadim waaye pay gaa ngi nii Masalik pare Cheikh Mountakha waaye jaaraama Cheikh Mamadou Lamine Bara waaye jaaraama Cheikh Sidil Mukhtar waaye jërëjëf le président Abdoulaye Wade ndax tey pàkk bi tey moo ko jël ci ndigalam wala ni que taalibe Cheikhul Khadim la bu wér ci ay maam ba cey ay ma ki baayam jagleel xam moom Serigne Touba waaye jërëjëf le président Macky Sall moom ñu yombale liggéey bi jàpp ci liggéey bi dugal ci loxoom tey ba mu sotti waaw dañu am mbégte rek mbégte bu rëy rëy la ñu am parce que sëriñ bi représenté sëriñ Touba fii ci Sénégal moo ñëw tey gane si sama commune ma nekk bi donc mbir bi mu ci am moom mënu leen ko xam sax. tey dafa mel ni sa nag tey man maay Touba nag tey man maay Touba jàppale ne rek tey man maay Touba. waaye lii hmm. def waaw man ak sama xarit bi Xaadim la def nañ ko defati ko. tey euh, am nga yëg-yëg bu rëy ci euh, ngan gi nga xam te ne moom la sëriñ bi jëf si fii tey. nañ ci yëg bu rëy rëy rëy parce que li ko waral moo tax ndax ñëw ubbi si daloo si kër gi nga xam ne mooy kër Seexul Xadim gi mu doon yeesal ngir waajal bis bu mag bii di ubbital Masaalikul Jinaan war a teeru gari lislaam yëpp ñu war a jiitu si teertu ko ànd ak moom dund loolu loolu rëy la ci loolu. sëriñ baa ngi waaj yegg si waaye gis nga tey fii kenn xaju fi li fi nekk ci ay doomu aadama jéggi na dayoo tey Touba moo toxu si ñëw fii ci Ndakaaru nga gis tabarkalla macha allah li nga kilifa goo xalaat rek tey teew na fi maa ngi seen léegi koo xamante ne kenn laajteeti ko ci yoonu Serigne Touba bi di jàmbaar joo xamante ni liggéeyal na Serigne Touba ba ñëpp ko woowee avocat Serigne Bamba bi muy maître Madické Niang mi ngi nii taxaw ak man. sëñ Mountakha nag ku jar sargal la ndax lan sëñ Mountakha ñëpp xam ni léppam yàlla la ñëpp xam ni léppam sëñ Touba la kon ku jar sargal la moo tax ñëpp génn si ñëpp génn si kon wax dëgg yàlla tey lislaam am na ndam. kenn du wax murid yi am na ndam kenn du wax jullitu senegaal am nañu ndam waaye lislaam bi yépp am ndam ndax liikat kat du wane lu dul ni sëñ Tuubaa am na ndam te su amee ndam lislaam bi am ndam bu leen fàtte ni sëñ Tuubaa bi mu fi nekkee lenn lan ko doon tumaal mooy jox boppam borom bi ba mu jeex tàkk bañ nangu autorité coloniale bañ nangu autorité koloñaal nu jële ko fi yóbbu ko fi fii ndakaaru mu dund fi ay guddi yu metti te yàlla may ko ndakaaru jumaa joo xam ne àddina bi yëpp daan seetaan si wax dëgg yàlla sëñ Touba am na ndam sëñ Touba li mu gën a bëgg mooy lépp loo xam dafa yëk day yëkkati daraja lislaam te lii kat daraja lislaam la yëkkati du ndamu ju murid yi kese du ndamu jullitu Sénégal mais ndamu lislaam bi la àddina bi yëpp ko bokk jumaa Masalik wax dëgg yàlla kéemaanu yàlla la di ndamu sëñ Touba kon sëñ taxaa mi mu nga xam ni moom la ko yàlla defal yàlla may ko mu taxawu liggéey bi sëñ Alaaji Baara mu taxaw ko sëñ Cheikh Sidi Makhtar ñooñu yàlla ni du fekke mu ñëw àggale liggéey bi ba liggéey bi jeex mu nar ko jullee kon sëñ Mountakha am na ndam waaye nag sëñ taxaa nii rekk la man def lu tax dax ni mu dëggoo dax ni melokaanam ay junniy junniy junni di ñoo fi tew tay sang bi waye tay ku ñew fi tay xamni tay tabarakallah ma sha allah Serigne Touba amul morom. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaw manam li manam euh, ci pay serigne Touba yi la yalla ko ko fay ndax dafa nekkal yalla ku nekkal yalla yalla nekkal la manam serigne Touba euh, manam dal euh, payam gi mom fi ba adnay tukki day gën di leer parce que julli gum jullon ci geej conséquence la ci la ñu jox ko Masalikul dinan ni parce que terre bi ni fa yagge maison parti socialiste nekk à 200 mètres 40 ñu def ko fi gisuñ ko kon nag ñu ngi sant sëriñ Saliou Mbacké ñu ngi sant sëriñ Baara Fallilou ñu ngi sant sëñ Sidou Mokhtar ñi ngi sant sëñ Mountakha sëñ Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi nag ndax farata la ñu ñaanal ko pour mu yàgg ndax moom murid sadex la